ko euh, démb en tout cas peut-être en direct wala par rapport ak li ñuy génnee ci biir euh, salle bi nga xam ne des confrères euh, ña nga fa woon di relate li nga xam ne moo di feeya fa jot a génn procès bi deux ans may mun a busoo wax na ko ñaari at ginnaaw ba est-ce que bi nga ko xoolee lii nga doon xaar maanaam ñu ñëw génne ko ci tribunal wala da nga bokk ci ñi nga xam ne peut-être dañ jàpp que ni am nañ ci déception par rapport ak li ñu dégg ñu raconté ko démb à la waaw Issa d'abord euh, damay euh, tontu tuuti euh, Maïmouna par rapport à la couverture médiatique. Mm-hmm. man j'ai fait dix-huit ans de de presse écrite. Mm-hmm. j'ai couvert beaucoup de procès. j'avoue que pour couvrir un procès comme au tribunal. Mm-hmm. si presse écrite la gën a yombee. oui bien parce sûr. que au moins mën nga toog. di bind pas besoin de ton téléphone mën nga bind jël jël sa note heure bi ngay ñibbee nga door a euh, coucher le reste sur le sur le papier. mais bu s'il s'agit de l'audiovisuel comme télé wala rajo c'est difficile parce que tribunal boo fay jàppee boo si téye sa téléphone nii sax du manipuler tam gendarme gis la fa ne la yaa ngi troubler audience. Mm-hmm. donc il est plus facile pour un avocat par exemple jël téléphone am wala bon. on leur permet de répondre au téléphone mais un journaliste un reporter bu ñu lay identifier comme reporter mën nga am problème maintenant bu ñu xamulee par exemple koo xam ne solo en gilet comme ni ko gars yi defee bon wala tu peux passer par les mailles di envoyer ay textos naturellement la nature a horreur parce que bu ñu gisalee ñoo xam ne Sénégal yoo xam ne dañu doon seetaan le procès te jékki-jékki mënuñ ko gis en direct à la télé ce qui ce qui était impossible parce que balaa ngay direct da nga fekk nga am caméra bu koy mën a filmer mm. mm-hmm. je crois que fii benn procès laa fi mos a gis ñu def ko en direct à une télé c' le procès de Hissène Habré te loolu c' était permis donc c'est pour montrer un peu c' est c' est carrément désolant pour nous autres de la presse parce que boo gisee ñoo xam ne la presse écrite bu ñu duggee nga caméra sax fan lañ lay parqué si biti mm-hmm. doo dugg mm-hmm. donc euh, voilà donc c'est ça un peu le problème. te ku nekk da ngay envoyé say nit aussi. <laughs> gis nañ ñoo bokk ñi beneen camp bi. ku nekk da Euh, loolu c' est pas la même chose avec euh, le duel presse écrite moom mën nañu dugg toog di jël seen note mhm. sans problème oui maintenant en tout cas euh, félicitations aux confrères yi nga xam ne ci ñoom lañ doon suivre procès bi bokk na ci xaxaandong ma fa demoon ku mhm. mel ni Sala aussi à travers moom en tout cas ci laa doon xoolee ay infos yu bëree bëri te jàpp naa ne amul benn waroo parce que infos yi ñu gis ñoom ñoo ñu relaté ko ñoom journalistes ya fa nekkoon ak yi nga xam ne moom lañ déggaat daanaka lépp benn la donc bu dee amul benn waroo rek da xam ne kon wax nañ dëgg finalement ci liñ doon bind revenir euh, si procès bi euh, man j'ai envie de dire mais tout ça pour ça cest à tout ça pour ça parce que procès bi moo xam ne defa tenir haleine mhm. toute une nation dem na sax ba euh, l'international procès bi ça faisait l'ordre du jour boo doon déglu ay rajo yi les médias étrangers dañ doon revenir toujours à chaque fois que procès bi ñu wax ko dañ si doon revenir donc ñu jàppoon ne avec tout le bruit bu àndoon ak procès bi waaja waajal procès bi non ñun procès bi bu amee jour boobu preuve yaa ngi fii film yaa ngi fii euh, nu mu sax la photo yaa ngi fii audio yaa ngi fii hier gis nañ tribunal ñu def benn tableau en attendant benn. projection pour pour projeter tous ces films là euh, ñu ne dossier de doc euh, procès la boo xam ne en tout cas affaire la boo xam ne c'est continue dans quatre cent soixante onze pages. loolu boo ko déggee rek nga ne ah lii moom dëgg moom dina feeñ. Mm-hmm. mais malheureusement à l'arrivée mën nga wax comme ni tubaab di wax la montagne a accouché d'une parce que on était dañ nekkoon si benn procès criminel procès criminel mooy yaakaar naa mooy procès bu gën a sérieux mm. parce que mooy bi nga xam ne euh, boo fa jógee rek bu ñu la ne kaso nga jëm nga perdre say droits civiques yooyu bokk yooyu c'est très important ma yaakaar nag procès bi mel noonu warul euh, ñi koy atte war a ñu yem si ay euh, j'ai l'impression wala damay dama yaakaar dama foog ne dama ay indice justice ñaari mbir moo koy lal muy dëgg ak preuve ñaar yooyu bu amee rek looy boo joxee verdict kenn du wax dara mais démb bu ñu joxee verdict bi en fait pas verdict bi bu ñu déggee le procureur def son réquisitoire beaucoup de Sénégal dañ ne kii si ban euh, élément la basé wu pour def son réquisitoire parce que boo déggee on euh, ñi fa nekkoon viol lañ doon wax mais moom si boppam sax dégguñu fa viol avec viol répétitif avec usage du wax nañ si ay ëmb mais léegi même procureur boppam ay avocat yoo xam ne mooy avocat wu ndaw si loolu yëpp déggoo leen benn yoon ñu tudd arme mhm. déggoo leen benn yoon ñu wax ay affaire ëmb finalement lu ñu doon wax ay je peux dire que ay détails lañ doon wax te luy confirmer loolu mooy que même question yoo xam ne ñoom lañu doon posé euh, ñoo xam ne les acteurs principaux nekkoon si euh, la barre. Mm-hmm. c'est comme boo xam ne mbirum massage la maanaam naka la ñuy maasee booy maasee ñaata nga am. ñaar loo ngay explication la gën a niru pour yow. voilà non parce que finalement je me disais que mais ñii est-ce que affaire u massage la wax waroo affaire u viol. Mm. parce que dañuy wax su ngeen maasee ban tenue ngeen di sol mm. yan lumière ñoo fay nekk. dem nañ sax ba capitaine Touré nee na leen man du ma du ma électricien bay xam may lumière yu nekk si saal beeg loolu. moom sax laaj ne ko di nga dugg ci. salon de massage waaw ñaata la ñuy ñaata la ñuy fay si massage massage ñaar loxo benn loxo yan tenue ren. Mm-hmm. donc loolu finalement à un moment donné tu disais que mais finalement lii procès viol la wala procès beneen procès la la preuve à l'arrivée le procureur requérir requérir na pour euh, une peine de dix ans pour viol mais moom su boppam sax. Euh, il semble ne pas être convaincu maanaam lu muy lu mu kii noonu nekkul tellement waxul nekkul dëgg si moom moo tax d'ailleurs mu wut une peine subsidiaire ou alternative mooy nu mu ko tuddee sax corruption de la jeunesse man euh, man délit boobu man démb laa koy door a dégg <laughs> parce que man am na délit yu bëri am na délit boobu man détournement de mineur xam naa ko mm. corruption de mineur xam naa ko agression sexuelle xam naa ko euh, ak lanati harcèlement waaw mais détournement euh, comment on appelle euh, corruption de jeunesse peut-être que mën na am aussi dafa dafa juum bëgg wax leneen mais détournement euh, corruption de mineur moom corruption de mineur te kuy wax kan mooy mineur corruption de jeunesse jeunesse bi mineur la wala lan kooku moom majeur la parce que nee nañu vingt vingt six mu ngi vingt six ans donc délit boobu am na juriste yu bëri ñoo xam ne sax xamuñ lu mu demee en tout cas ñu ngi koy laam-laameen ñu ne wax naan boobu ban délit la ñenn ñi euh, euh, bu code de procédure pénale <laughs> loolu lañ jot a gis am ñoo xam ne moom euh, corruption de jeunesse de la jeunesse donc ça n'existe pas donc donc vraiment pour te pour te dire que finalement c'était pas ça ça hmm? ça pas très sérieux quoi pour tout ça <laughs> surtout yo procès boo xam ne bu mu du début ba fu mu ba démb am na au moins dix-sept morts ñaata milliards lañ si ñàkk ñaata biens lañ si ñàkk euh, vraiment on on s'attendait pas à ça on s'attendait à des preuves mm-hmm. ak dëgg boo xam ne ku sénégalais bu ko dégg bu ñu déggee ne condamné nañ diw Ousmane Sonko dix ans wala cinq ans de prison ñu ne ah waaw kooku de mën na nekk parce que lu ñu lu ñu génnee tribunal wala lu ñu déggee tribunal. Mhm. alors jar na euh, verdict. oui deux ans ndax euh, mars deux mille vingt et un la woon euh, coow li février sax lañ porté woon février kon ëpp na ñaari at booba ak léegi Pape Sané fukki doomu aadama ak juróom-ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan ay biens yu bëree bëri yàqu ci ak liggéey yi nga xam ne bloqué wu na si est-ce que da nga bokk ci sénégalais yi nga pour ça wala li nga dégg démb ca tribunal ba euh, nekk na loo xam ne loo fa doon xaar la. ben écoute Georges dafa résumer tout ça pour ça vraiment bon moi j'ai la chance d'y d'y d'y avoir été euh, toog fa ay déglu débat yi mais je di encore euh, li ma waxoon démb laay waxaat mooy que j'ai j'ai j'ai j'ai honte quelque part et je suis triste pour mon pays pour ñu egg à ce niveau euh, je dirais pas d'échéance mais Euh, de de rabais c'est c'est c'est extrêmement c'est extrêmement grave parce que euh, on a dit hein, depuis février 2023 qu'est-ce qu'on a dit au Sénégalais un homme politique a violé une jeune femme dans un institut de vote cest à man tout le débat tourne autour de ça viole viole viole viole ba muy ñaata juróomi yoon ba pare menace de mort donc man dans mon entendement mooy que dès l'instant où le procureur de la république dem ba jàpp ni que loolu xale bi wax moom am na ci éléments yu leer ba ñu ubbi enquête fële ca section de recherche euh, def ci ay diligence nécessaire ba pare jël ko yóbbu ko ci juge d'instruction juge d'instruction également jël un une ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle pour man je m'étais dit dans ma petite tête que donc il au moins quelque chose bi nga xam ne teg nañ ko ci table bi et que nous le commun sénégalais gisuñu ko xamuñu ko parce que yebewuñu sénégalais yi yebel gu day ni ñëw taxaw ci tribunal on a quasiment pas parlé de viol lañ fa doon wax mooy colinu xale yi lañ fa doon wax ñaata nañ doon fay c'est-à-dire que euh, tu l'as dit tout à l'heure a c'était le procès de la femme ça fait ça fait mal ça mal en pâture comme ça nos sœurs nos nièces et comme ça parce que c'était c'est en fait c'était ça le véritable débat man gisuma fa la ñu fay wax teg fa la nga xam ne sénégalais mun nañu ne ah kon de xale bi wax fa dëgg yàlla àgg nañ ci moom mais je l'ai dit tantôt dama ne woon procès bi dafa àtte boppam mm-hmm. àtte na boppam balaa ñëw kii ci naka àtte na ci boppam dans la mesure où dès l'enquête préliminaire on a vu un officier de police judiciaire un officier de la gendarmerie et Dieu sait que ce que l'État du Sénégal investit dans la formation des officiers mais néanmoins on a vu cet officier être radié pour avoir dénoncé les conditions dans lesquelles se déroulait l'enquête mooy première quoi deuxième ñu gis médecin bi nga xam ne moo def certificat médical bi ñu koy persécuter di ko persécuter avancé ni que amul am na sax lu ñu ko proposé mu lànk muy ñaar ñett ñu dégg fi moom xale bu jigéen bii taxawoon ne dañ ko siif juróomi yoon euh, daf ci jëlee ëmb jànq la woon et ñu gis ni que loolu yëpp ça a été contredit soit par les témoins ou bien par moom ci boppam ñu ne ñu nag am na ay vidéo ñu doon xaar ci vidéo yooyu parce que ñun ñëpp on vivait de cet espoir là mmh. mais gisuñu dara on rien vu on assiste hier à un procès qui ne devait même pas avoir lieu. Mhm. ça a eu léegi nag li ci am Issa. Euh, je dis encore une fois Georges l'a dit parce que quand euh, dans son réquisitoire procureur ne su le tribunal est convaincu que Ousmane Sonko dafa violé nañ ko tëj dix ans c'est-à-dire que moom maître des poursuites nga xam ne moo déclenché les poursuites mais il est convaincu leer na ko ne Ousmane Sonko dafa siif xale bi juróomi yoon moom léegi en ce moment la euh, je crois que quelque part on peut dire que ci moment boobu euh, Dieu était en dessous en dessus de la salle de tribunal mooy que euh, parce que ça a tellement évolué entre l'accusation bi nga xam ne et le Euh, devant de renvoi devant la chambre criminelle ak ce qui s'est passé hier je crois que le Sénégal ne mérite pas ce type de spectacle mm-hmm. ça ça il faut le dire mooy benn bi nga ma a eqale foofu mais je dis par rapport à nos enfants par rapport à nos enfants euh, les débats qui ont été soulevés hier mais c'est des débats de bas étage de très bas étage mooy que démb on a montré on a fragilisé et on a minimisé la femme parce que bu ñu demee ba yenn question yi di ko laaj jigéen devant un public comme ça euh, je crois que vraiment euh, soxlawu koon sinon sinon bu doon c'était pour la manifestation de la la vérité mais hier ce qu'on a pas une manifestation de la vérité euh, Maïmouna Bousso dégg nga ko procureur def réquisition